nekk ci district Mbacké euh, wax fa dëgg ci euh, mën nañ ni ci taarix xaj na lii gulet ñu taxawee ko nii ci premier mais bi dajale mbooloo mi defar benn mémorandum boo xam dafa tënk jafe-jafe yi nga xam si moom la ñuy dund ci centre de santé bi ak district bi pour ñëw jébbal ko kilifa gi jébbal bii ñu ko jébbal kilifa gi nag jébbalu yaakaar la ndax comme moo fi taxawal toogal nguur yilif ñëpp ci département bi kon lii ñu ko jox dañ ko ko jox ngir ëllëg ñi ci war a toog toog ci euh, saytu ko càmbar ko ba lii nga xam si moom lañ ci tënk ñu mun cee am ay solution yoo xam si day indi euh, dal ak jàmm euh, ci biir centre sant bi ak district gu ba tax na kon mémorandum bi comme ni nu ko waxee rek sànq euh, jafe-jafe yi nga xam si a ah, moo ci nekk mi ngi jëm ci li ci njëkk mooy wàllu euh, ressources yi parce que ressources yi mooy liggéeykat yi ndax wolof Njaay dafay wax ni benn lam du yëngu kon liggéeykat yi lépp loo xam ne si wax dëgg yàlla dañ leen ko war a taxaw pour ñu am xel mu dal mën a liggéey ci xel mu dal jëf li ñu war a jëf ci centre bi ak district bi yëpp loolee dañ cee war a am taxawaay te kenn waru ci am taxawaay loolu kilifa gi nga xam ne moom lañ dénk centre euh, wax nañ ressource matériel et financière loolu it gis nañ ni wax dëgg yàlla ay jafe-jafe am na ci ci li jëm ci sedes euh, bi ndax it lépp mandat la CDS bi dañ koo teg ci mu am mandaa ne fii la tàmbalee ba nangami at mu jeexal kon jàpp nañ ni tamit comme CDS bi jeexal na même bu fekkee ni ñoom lañ fiy tegaat ñu doxale waat ko ci nañ ko war a doxalee ba ñooñu ñu teg leen ñu ko seen liggéey mais comme mandat jeex na nag des ko yeesal mais mandat mënut a noonu rek ba ilaa kon loolu ñu ngi invité autorité administrative mu jël ci ay dogal yeesalaat ko même bu fekkee ñoom la ñuy delloo si ñu xam ne am na mandat bu yees ñu continuer seen liggéey <coughs> donc loolu tamit ñu ngi koy Euh, dugal ci mémorandum euh, gis na ni tamit gestion bi wax fa dëgg yàlla dafa am ay lëndëm lëndëm parce que léegi jamono ji ñu toll yaakaar naa ni dañoo toll ci jamonoy leeral lu xewoon bu njëkk ba nga xam ne danga fi nekk tëju ci biir bind maasay kayit bind na nii la nii la yooyu jeex na gestion transparente la wax partagé parce que man jàpp naa ne lépp looy def pour man boo ko dee def saa fekk ko man jàpp naa ne loolu c'est man loolu la tubaab tout ce que pour moi sans moi c'est contre comme njaboot gi la ñuy liggéeyal li ñuy def yëpp pour ñoom la te syndicat bi it buñ ko sosee sosuñu ko pour noonoo ak kenn du ñuy noonu mais ay partenaire lan partenaire mooy lan nag li ngay def pour ñëpp njaboot gi yëpp mais partenaire bi am kuréel gu taxaw goo xam ni ci ci niveau national bi ba ci niveau inférieur fépp la am mais yaakaar naa nag boole ko associé wàññiw ko dara donc dañ leen war a associé ci gestion bi ñuy fekkee di gis bu ko defee sax ñooy doon seen avocat ñooy doon avocat kilifa yi ci kaw njaboot gi bu leen yenn yi lënt-lënt yi ëmbee ba xamew ñu ba ñu bëgg a dérivé ñoom dina ne ah déedéet demewut noonu nii la nii la demee parce que toogoon nañ fa kat fekke woon nañ ko kon loolu yaakaar naa day doole jàmm rek waaye nekkul loo xam si wax dëgg lu ñuy war a xumtoo la di ko nëbbutoo pour que ñenn ñi nekk ci kumpa et la nature à horreur du vide su fekkee ni yow da ngay giixi jaaxa rek ni nga ko xalaatee rek nga koy waxee mais loo fekkee nag wax fa dëgg yàlla la cay dëgg di nga ko wax te partenaires sociaux la war ñoo ñoo associé ci ndaje yi ñuy fekkee ci gestion bi ak li fi dugg ak li fi génn recettes yi lépp war nañoo xam nu muy demee donc loolu daal euh, ci tënk wax fa dëgg mooy li ñu ponk yi tënk ci mémorandum bii ñu dégg jébbal kilifa gi comme ni wax di amaat yaakaar bu baax nag ci moom nii fii ay fan bu toogee ñi ngi koy souhaiter en tout cas la bienvenue parce que kadem moom it ñi ngi koy euh, ñaanal yoonu jàmm waaye kii ñëw it ñi ngi koy ñaanal mu dalak ak jàmm euh, ba département bi euh, mu fekk fi jàmm surtout nag ñun ci secteur bi ñu yëngu muy wàllu santé nga xam ni temps yi am na ay yëngu-yëngu ci centre de santé bi ak district bu Mbacké ah moom mi nga xam mooy autorité administrative bi mu seet ñu war a tooge ba waxtaane ko ba jàmm ak confiance bi war a ci diggante euh, kilifa gi ak liggéeykat yi mën a delsi pour population yi mën ci gis seen bopp donc loolu daal moo nekkoon euh, macha allah li ñu waroon wax